Si on se réfère donc à l'Atlas Tabac, au Sénégal, c'est environ 4000 personnes donc qui décèdent hein, donc au tabac. bu amee xale yi des milliers ay junni ay junni nit di faatu ci cigarette par an c'est l'État qui est responsable parce que l'État moo warul def lu mu war a def te li mu war def yomb na mooy signer décret bi adopté ko cigarette génn ci boutique bi cigarette bu génnee ci boutique bi bërëb bi ñu koy jaayee ñu koy woowee débit de tabac. xale mënu fa jënd cigarette bi ci topp mooy distance bi séparé ñaari débit de tabac comme c'est laissé à l'appréciation du gouverneur gouverneur bu ko neexee mu ne benn bi Dakar lay am beneen bi Pikine lay am est-ce que di nga gis ku jógee Grand Yoff dox ba Pikine pour jënd cigarette xanaa nga yóbbante donc loolu la ñu wax c'est-à-dire cigarette bi warul yomb waruñu ko yombal yombal boobu ñu ko yombal mais moo tax xale yi jot yi yombal boobu nag moo waral chicha bi ñu yombal ko ba baar di bari koñ boo dugg ku nekk ubbi sa kër def magasin bu ndaw di jaay si chicha donc loolu moo moo war a jeex comme kenn waxu ji nag ñun suñu rôle vraiment mooy interpeller wax si parce que dañ naan ah Sénégal dynamique bi ñu nekkoon mais baax na mais dañoo commencé bàyyi seen loxo loolu moo tax ay dëkk yi nga xamante ni mooy ay Côte d'Ivoire yi ñu doon xool mais dépassé nañu tey ñun ñu ngi ñu ngi tiitaroo mise en garde sanitaire mooy image yi ñuy def ci paquet cigarette loolu mooy mise en garde la ñuy tiitaroo parce que bañ koy am fii pratiquement ñett dëkk ñoo ko amoon Afrique mais tey mais gars yi romb nañ foofu Côte d'Ivoire mu ngi dem paquet neutre paquet boo xamante ni doo xam société bi ko defar xamoo ban marque la dangay ngay jënd rek tox amul publicité amul dara donc ci loolu lañ jëm mais koo xam ne mënul appliquer loi mais mënoo dem ci loolu